ay Medina ñaari ñoom ñaari ñëpp ay ñaari mars a fi am Medina ñoom ñaari ñëpp ay mars ñëpp a mars ñii ñoo jug ñii jug mais dama a a a a Basiru kaanu cukkulu gi laa ragal kaanu cukkulu gi Bassirou Kaarou Cucci bi borom tiset bu weex bi nga laaj ko lu xew. lan moo xew. lan lan moo xew. fii ñun ñooy borom. fii monsieur le maire Bamba Fall mooy borom ñoom luñ si bañul ñun bañuñu ko si. ay politiciens ñoo nekk seen gannaaw di leen jox xaalis pour ñu arrêté lii ñoom luñ si bañul ñun bañuñu ko si. eh ñoom lu ñu bañul si affaire bi ñun bañuñu ko si. dégg nga ma luñ si bañul ñun bañuñu ko si. voilà ñun moom ñoo ne si diggante bi. lan la lan la lan la. mooy dañuy aalu comprends nga. Ah. mais tey jii mm. te dafa war a rafet. Bamba lépp lu muy def tamit na yërëm seen i bàyyi. yërëm seenu yi comprends nga. Mm. na yërëm seen i quoi looloo ëpp looloo ëpp jàmm. comprends nga tey jii yi muy demee amul sens. yéen day tax nit ñi di reyante seen biir. te Bamba xamee ko woon genre business yooyu mais léegi dafa ñëw yàq lépp parce que terrain bii nii ñun fi lañu fooyee ñun fi lañu juddoo fi yaroo terrain bi li ñuy fubalee fi lañu jàngee fi lañu defee lépp tey bu ñu ko xañ loolu noonu ñu ko nangu ba pare am na beneen terrain bu mu defaraat côté Almeria côté Almeria suñu côté koñ côté Almeria am na beneen terrain bu mu defaraat waaw suñu bool waaw waaw comprendre am na amul solo am am na amul solo tey yaa ngi liir yi liir yi ñëpp ñoo far ñëpp ay jeune lañ yéen bokk Medina ñoo bokk Medina waxtaan lañ jubóo ama demee dañoo war a waxtaan jubóo mais baax na lu muy def nii ko fenn indi coow waaw indi coow jaajëf tey lépp lu muy defoon yaa ma ko def jaajëf xam nga moom mooy Medina lan la lan la lan la damay jàll kenn mënu ma tee damay ma damay jàll dañu waroon naa si Bamba Fall dem génne ñeneen ñu damay jàll pour ñu jàll man damay jàll man damay jàll kenn mu tee la kenn duñu tee fii la ñuy jaar lii yoon la nag nga waaw parce que ay tapet la duñu defee dara ñii billaay duñu defee dara ñii ñu sale waaw maintenant ah, ah. doomu Médina ñoo ko moom du maire du président doomu Médina yi fi dëkk yaroo fi seen papa yi juddoo fi ñoo ko moom leneen rek laay ñaan ah leneen laay ñaan ah, na policiers yi bàyyi di fay booy yi cent mille ak deux cent booy di xeex entre biir booy dañu xam ne ne Médina ñun moom bu ñu benn maire jaxase. fii sax la. ñoo ko moom suñu teeree ñoo moom fii ñun ñëpp dañoo jaay seen ngor eh. soxlawuñu dërëm. barke alxuraan suñu terrain rek a ñu ñoree suñu terrain rek a ñu ñor soxlawuñu dara nañ ñu jox suñu terrain suñu terrain nañ ñu ko jox Bamba Fall dëkku fi Bamba Fall ñëw dëkku fi Bamba Fall Bamba Fall méttiwul Bamba moomul fii. mais tey métti na lan la wax. day métti suñu terrain la ñu koy jox waaye Bamba Fall sàcc la. la ilaha illallah ay waay Basiru Basiru yëfu yëfu lamb am na fi léewul ma dina jëm xi ma dina nga tali bakki war ma moom maintenant ñoom ñëpp benn lañu li musu fi am musu am ci àdduna maa ngi soog a gis lii eh waay waa Medina eh, <laughs> maintenant yëngu nañ yaa fii nga yëngal Médina Félèbe non non non non gars yi gis ngeen ni Médina di dundee lii dañu wax Médina dafa am borom man mi liggéey Médina ba tey ay nit jug ne dañ koy yàq lii teel a dina fay ñoo wax seen gouverneur waaye Médina bii dafa am borom loolu dafa leer xam nga Falaye borom Medina loolu lu leen nañu la gars yi arrêtez leen xeetu s'il vous plaît arrêtez leen daanu ci kulig commencé ma daw man démarré na bu yàgg Basiru ñemewu ma kaanu ci li may wuri wa dem na ko wax ne ma ngan daal dama koy làmb rek mu jigi mais li nga xamante ne zone bi naa ñu ngi koy xeex lu am importance la ci li nga xam ne mooy seen espace boobu muy terrain bi ah maintenant benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar. mais Abo. waay nga nga nga baal ma rek. Mhm. Euh, du lu ma tàmm sax di wax. waaw waaye ma sànni ci ay kàddu. dëgg parce que municipalité bu demee tey bay yëkkati benn projet pour ville jàpp naa ne projet la war a nekk projet bu noble boo xam ne nii day gën a day gën a yokk euh, jàmm ji nga xam ne am na ci commune ba mooy le stabilité bi nga xam ne am na ci dëkk bi projet bu buñ mën di indi ci réew mi rek dafa war a renforcer loolu mais waru koo salfaañe mais tey bu ñu amee projet boo xamante ne nii day xaajale ay gox day tas ay njaboot loolu jàpp naa ne projet ba lu mu riis projet bu ñu war a teg ci suuf la parce que lii nii di raam ci ñag bi la jëm tey bu ñu séenee benn gox benn commune di Médina xale yi génn nga xam ne ñoo war a bokk ndey bokk baay te boo xoolee bu njëkk Médina solidarité lañ leen xamee boo laalee doomu Médina kum ci mën di nekk laal nga ñëpp loolu lañ doon faral di gis muy ci sport muy ci musique muy ci culture lu ci mën di nekk doomu Médina en général dañu doon sot mais bu ñu demee bay xeexoo ko xuloo ak a ko ŋaayoo ndax lan projet boo xamante nii ñenn ñi ñu ngi koy défendre en faveur di maire ñeneen ñi ñun nee nañ soxlawuñu ko parce que bokkul ak seen seen i yelleef donc loolu teg ko ci suuf dama yaakaar ne day gën ñuy jàpp ci projet boobu noonu ngir suqali ko parce que terrain bi bu njëkk terrain public la woon bu ñu ba koy privatiser te askan wi nanguwuñu la majorité d'accorduñu jàpp naa ne dañu ko war a teg ci suuf ñu wut beneen terrain boo xam ne municipalité moo ko moomal boppam ñu ko lépp luñ ca bëgg def ñu def ko ca man loolu laa jàpp ne loolu moom mooy xalaat bi. jërëjëf Bassirou kaddu yi am na solo ci li nga xamante ne mooy kaddu yi nga yëkkati jëmale ko ci Medina Medina bu ñu doon xool dañoo solidarité woon Medina nekkoon réew moo xamante ne la woon Medina kenn daaw xam ci lu ñàkk fayda mais tey ñu ngi gis Medina benn image boo xamante ne nii image bu daw yaram image boo xam ne baaxul image boo xam ne day yàq nit lépp luy yàq waruñu see mën a nekk li nga xamante ko def te Medina ay jeune kese lañu ay léegi ñu si Medina am lay jéem a ñun dañoo am autorisation kon ñun bu ñu génnee ñeneen waruñu génn. kon c'est la vérité y a des choses yoo xam ne c'est trop. Baba Fall ñun juruñu jënduñu ñun ñoo ko faloon il commence à nous merder mais lan la Bamba lan la ñun maire lañu faloon mais waxuñu dictateur tey lan la wax dafa ne employé bu génnul bu génnul du leen fay looloo tax xale yi génn mais xale yëpp génn ci moom Bamba Fall li muy dundee xam nañ ko dañ ci doomu jullit duñu wax lépp nag duñu wax lépp ah waaye xam nañ li muy dundee te billahi wallahi ñoom ñëpp laa wax kenn ku si jàkkaarloo face à face doo nga am. waaw ça va. lan moo waral seen coow seen coow yi nga xamante ne mu ngi am coow li. di ko léegi ku xam ne naa xam leen si booloo ci benn ci lépp ci àdduna tey ngeen di coowoo ci benn affaire lan la. waaw xam nga ñun ñi fi nekk ñëpp ay booy Medina lañu. fii ku fi gaañ doomu booy doomu Medina nga gaañ. parce que dégg nga tey ma su ma jëlee xeer toj boppu kenn. doomu booy maintenant laa toj ba ëpp mais problème bi mooy ñun dañu am autorisation pour marche moom Bamba Fall heure bi poste Médine la ko woon ñun ñoo fi woon nekk kooku ñu ne ñëw na ñoom ñu ngi indi violence ñun daf ñu violencé da leen ñu def ñoom seen violence ñun ñëpp ànd ak ñoom bokk ñëpp ànd ak ñoom ñun cause bi ñu tax a jóg ñun moom la ñuy défendre dañ koy défendre di koo défendre di ko défendre ba bés bu ñuy dee duñ ko bàyyi mu wasalaam pour ñu jox ko askan wi. maa ngi lay nuyu. maa ngi lay dama ne ñu wala ñu moo ñu tax a jóg. Ah, ñun dañu ñëw feebar bi nga xam ne mooy pandémie. ndax feebar bi ñu marché bi. ñu marché bi ak les forces de l'ordre parce que ordre c'est pour tout le monde s'il vous plaît. li ñuy xotee mooy teeree jaraaf te teeree jaraaf par force dañ koy def. ngeen continuer ngeen parce que suñu doom yi ñoo ko moom dañuy politique pour former xale yi te amul sens. Medina ñëpp Medina lañ dëkk. dafa am lu ko tax a jóg. buñ nee maire maire maire mooy Dama Fall. li fi def mos ko fi def. liggéeyal askan wi. defar na askan wi ba pare. Medina la ñu dem ñu bëgg a. ñu defar Medina defar Medina. te suñuy mag lañ suñuy xol lañu. ndax tey. waaw waaw waaw gis ngeen li nga xam ne. mbéy naa xam ne la foo la woo lépp la leen woo tey ñu mel ne président bi ñun la ñu àndal. mbéy naa la ñu wóoroo moo tax li ñu doon def ñu ñaan ngeen bàyyi leen ñu def xam ngeen ñoom ñu continué. léegi nag gis nga bu ñu paree musique yi. ngeen ñu xëy ñu xëyante yéen ñi taxaw si buntu waaw parce que a si fii si buntu moo tax. ñenn ñi ñoo formé bàyyi fi ndaw ñi ndaw ñi na li ma leen maa ngi lay nuyu di la ziar. ñu ngi lay ziar Kaza ñu Medina. benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar mais tey gis lu image bu doy waar seen biir yéen i coowoo ko ngiiroo ko ngaayoo lan la moo war a coow mais tout d'abord euh, di lu seen teewaay bon di santaal yàlla bu baax a baax a baax waaw li ñu ciy wax rek mooy que ne Sénégal politique daf ko xaw a yàq quoi politique dafa yàq Sénégal quoi parce que boo xoolee riposte bi am nii yëpp c'est politique quoi c'est politique parce que da nga wax ak ay nit ñu xamal la carrément que ne dañ leen fay journée 5000 pour ñu am journée pour perturbé loolu moo lay wan ne ñoom dëkkuñu Médina intérêt Médina taxu leen a jóg kon seen gagne-pain la cinq millions ñu leen fay loolu moo leen tax a jóg pour saccager pour yàq pour ñaawal liggéeyu kilifa gi liggéeyu Cheikh Ahmadou Bamba Fall te yaakaar naa Bamba Fall bon li mu fi na tamit quoi nekkal na fi askan bi nekkal fi bi nekkal population bi kon donc alors dafa jaadu ñu ànd ak moom jéem a ñëw jàppale ko ci li mu nekk moo gën yàq bi quoi yàq bi amuñ ci benn intérêt bu dul 5000 lañ ci am journée. ñu ngi gis ñu ñëw ñëpp 5000 lañ am journée ñoom. mais ne euh, pour terrain euh, bi la. waaw waaw waaw waaw ñoom loolu wax ñoom loolu lañ wax pour terrain jaraaf bi mais yaakaar jamono buy dox da ngay dox ànd ak jamono Sénégal nañ ma wax ban commune la ñuy dem gis fa terrain synthétique bu ñu privatisé wul nañ ma ci wax benn terrain synthétique Sénégal te privatisé wuñu ko xam nga yenn yi tamit soxor la parce que la ngay dem di ko fay ji beneen commune Dakar Sacré-Cœur wala feneen ak nga fay sa commune participer sa commune yaakaar naa ne moo ëpp njëriñ quoi transport du la fekk dara du la fekk moitié bi sax amaana doo ko dépensé pour football sa biir commune mais lépp sa politique nag la lépp sa politique adversaire politique ñoo nekk ci ginnaaw loolu comprendre nañ ko ñu ngi fi gis ñëpp ñëpp ñëpp journée 5000 moo ñu bind journée 5000 kon donc alors loolu quoi. mais coono li ngeen gis du tax ngeen teggi seen tànk. teggi seen tànk ñooñu duñ teggi

politicien ngeen moo nekk ci seen ginnaaw. waaw ah, mais nekk ci ginnaaw fii ñi fi nekk Médina bëgg maire yi te bëgg taxul am. mais fal fal ko de. Euh, ñun fal moo fi nekk wallaahi asim barke Serigne Babacar Sy ban moo fi nekk ñi nekk duñu waa Médina dañ leen jox 5000 pour ñu ñëw saccagé waa Médina Bamba lañ def seen xol Bamba moo fi ne Bamba lañ bëgg bu bu ñu demee élection nag ci nga xam ne li mu wax lépp dëgg la quoi. on peut pas leeral ñu ci xaalis bu bari bi nga xamante ne moom la def ci centre socioculturel bi am rue 41 angle 24 de douches publiques yoo xam ne mi koy liggéey. loolu lépp leer. ni mu koy ni mu koy liggéey. kii moo xam lépp day leeral. ni mu koy liggéeyee jaajëf ni mu koy liggéeyee dafa tey dafa darul xel ndax li mu def jaxtuwul te gis nañ ko. mu doon loo xamante ne nii lu doy waar la boo xoolee travaux d'aménagement yi nga xam ne mooy pavage bi am na ay mbir yu doy yu ci am ndax contrat bi mu signé woon ak Auchan la bëgg mu leeral ñu naka la koy xaalis boobu 600 millions yi naka la ko utiliser ci tabaxaat école yi ak defaraat ay pavage nous lui demandons à nous édifier sur l'affaire bi ko opposé ak benn GIE bu nekk ci mairie bi ak société Smart City un an tey ñu gis ne loolu jaaduwul kon bëri na ay jooytu yu xale yi am ginnaaw terrain jaraaf ni ñu ko bëgg a def ndax fi mu jaar ak ñi ñëpp bu fa jaar ak terrain jaraaf kon xale yi dootuñu football ci biir Médina au demeurant collectif bi dañoo décider limité ci question yooyu kese waaye am na yeneen question histoire ñu des uh-huh. ci mbir uh-huh. ndax ay ndaw jugoon nañ fi yor collectif uh-huh. kii di wax ak yéen ci la bokkoon ñu posé woon benn problème ba mu arrêté ko ndaw Medina yooyu tey ñoo dajalewaat taxawaat à toutes ces questions si mentionné lu collectif interpel le ministre de tutelle monsieur Omar Gueye mi nga xamante ne moo yor wàllu woowu ci responsabilité la bokk mu inspecté mairie yi xool seen ay doxalin def audit audit boobu nag def nañ ko ci mairie Médina waaye ba léegi audit bi xam nañu ne wax dëgg yàlla mairie Médina ku ko audité da nga ko jàpp mooy maire Médina ci jalgati yu métti métti la nekk yoo xam ne ñun am nañ ci lu leer moo tax xale yi ne non non à la privatisation du terrain Jaraaf ils ne l'accepteront jamais. jamais, jamais. nous interpellons l'État du Sénégal et l'ensemble du, du, du gouvernement et particulièrement le ministre tutelle Oumar Gueye de prendre toutes ses responsabilités d'édifier la jeunesse de la Médina. C'est une jeunesse responsable, conséquente avec elle-même. C'est une jeunesse qui a voulu éviter le pire aujourd'hui. C'est pourquoi nous nous sommes organisés pour éviter la confrontation. Et je pense que vous, les journalistes, vous avez été témoins de tout ce qui s'est passé. Nous étions là, nous avons... Il a recruté des personnes qui ne sont pas de la commune. chose qui est extrêmement grave comme waxtu wi jot na ñun ci commissaire a ngi noonu di ñu artu ci waxtu bi nga xam ne moom la ñu tënkoon dañu bëgg a yemale fii waxtaan bi di wax ne su ma sañoon ngeen jël le coordonnateur tamit mu sànni si ay kàddu jërëjëf wasalaam ku ci soxla texte linéaire bi ci journaliste yi dinañ nga ko jox. jërëjëf patrimoine communal ça appartient à tout le monde waru ko jël di ko privatiser. donc loolu moo tax tey ñu ñëw soutenir jeunes Médina yi pour jàppale xale yi pour wax leen ne leen na leen Bamba delloo seen patrimoine Bamba nag yàq na Médina parce que tey li boo xoolee dafa ñaaw xale yëpp jóg nañ ñoo ko faloon mais dem nañ ba bëggatuñ ko donc il n'a qu'à dégager na bàyyi bon euh, ko donc na bàyyi donc Bamba Fall dama lay wax ne la Bamba je te lance un appel Bamba ça fait dix ans yaa bi apporté loo dara Médina doy na xulooloo nga leen xeexloo nga leen yàq nga seen ay jikko jël nga seen suuf yàq jaxase doy na bàyyil bàyyil il est temps il est temps de se retirer nga bàyyi keneen dem donc mënatoo dem bàyyil dellool xale yi seen ay suuf école yi nga jël bradé ko delloo leen terrain football yi bra delloo leen terrain basket yi delloo leen jàkk yi delloo leen ak toilette publique yi donc moomul Médina na delloo waa Médina seen alal restaurant restaurant Playa bale mu jël tam jox ay naar na ko delloo na delloo waa Médina seen alal il est temps que waa maintenant jël lu ñu moom loolu moo taxoon tey ñu ñëw teew fii pour euh, participer ci victoire xale yi parce que tey lii victoire u Médina la victoire u jeunesse u la tey vraiment jeunes yi dañuy wax ne génération bu nekk génération bu nekk am nga sa mission mission bi nag da nga koy doxal wala nga trahir ko mais xale tey Médina yi dañoo doxal mission bi leen war donc vraiment maa ngi leen di jaajëfal di leen soutenir di leen wax jaaraama donc vraiment le com le combat continue ñun ñoo xam ne nag ñooy les élus de principe et de valeur ñu ànd ak jeune Médina yi di xeex dëgg parce que dëgg doxaluñ ko ci conseil municipal bi keroog ba muy décider lii tàgguwul conseil bi dafa ne damay posé damay teg rek la wax waxul damay loué waxul damay jaay waxul damay ablé waxul damay privatiser donc il est temps que nag tey ñu teg Médina ci lu leer lëndëm bi doy na lobbi damay wax ne mumbaay bi mumbaay bi ak rumbaay bi dafa mumbaay bi ak rumbaay bi dafa doy munoo jël mairie dix ans dix ans li nga fay ci hôtel Saly rek ëpp na cent vingt millions tey cent vingt boo ko joxoon jeunes yi am lu ñu liggéey donc il est temps que Bamba Fall dégagé la kan dem boppam la fi nekkal donc ñun gestion bi nga xam ne gestion gestion bu solitaire bi nébuleuse et solitaire moom lañ doon dénoncé donc Bamba Fall démissionnel bàyyil ñi la faloon bëggatuñ la delloo leen seen yëf Voilà, donc c'est ça le message. Dans le Ligue. Eh, vive la jeunesse ménidoise. Vive la jeunesse, vive la jeunesse ménidoise. Sa kaw ca kanam rek sedd.